alors Justine fan ngeen di daal di njëkkee ci li nga xam ne moom mooy actualité moom mooy verdict Khalifa Sall. voilà donc euh, yaa xam naa ci loolu la ñuy njëkkee ndax tey boobu léegi ñu ngi soog amat euh, jotaay pour wax ci. Mhm. Euh, muy dogal bi nga xamante ne tribunal bu ndakaar génnee na ko semaine bi ñu génn ci mbirub Khalifa Sall maire de Dakar ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal ci dossier bi. mooy fàttali rek ni ñoom juróom-ñetti nit la ñu woon. ñaar rek ñoom ñoo ci nekkuloon en détention ñoom il n'était pas en état d'arrestation muy ñaari yi ñoom dañu nekkoon nekkoon en liberté. alors euh, bu ñu sukkandikoo ci dogal bi nga xamante ne tribunal bi joxe na ko am na ci ñoo xamante ni ñibbi nañ seen kër am na ci ñoo xamante ni ñoom daanaka nekkuñu dañ setal nañ leen am ci ñoo xamante ni ñoom ñoo des ci kaso bi. ci ñi nga xamante ni moom moo ñoom ñoo ñibbi seen kër muy nit euh, bokk mu bokk ci soxna si nga xamante ni moom mooy Fatou Traoré mais maanaam moom peine bi ko condamné tëdd na ko ba pare parce que yéen a ngi fàttaliku 7 mars set ci lañ leen placé woon sous mandat de dépôt donc boobu ba léegi euh, ëpp na at donc am na ci ñu ñetti nit ñoo xamante ne euh, li ñu leen condamné euh, tëdd nañ ko ba pare donc euh, détention provisoire bi couvrir na ko largement ba tax na kon génn nañu ñibbi nañ seen kër ñu mën ci tudd Fatou Traoré ñu mën ci tudd Amadou Diop ñu mën ci tudd tam ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Yatma Diaw. Mhm. boobu mooy première catégorie bi. mais Pape Ndiaye balaa ngay continuer Fatou Traoré dañ ne 6 mois ferme te tëdd na 1 an. Mhm. am na leneen lu ci war a kii wala dafay génn rek dem topp. waaw léegi ñaari mbir moo ci am ci tegu voilà ñaari mbir moo ci am. parce que bu ñu la nee deux ans. Mhm. donc six mois ferme donc ça veut dire que six mois nga war a tëdd. Mhm. li ci des dañ la koy dencal. d'accord loolu dañ la ko fiy dencal. dafa mel ni sursis li muy tekki rek parce que sursis quel que soit peine bu ñu la condamné ak sursis un mois deux mois avec sursis trois mois avec sursis li muy tekki mooy da ngay génn ñi ba xam nga. Mhm. sursis bu ñu la ko joxee doo tëdd kaso. mais fii juróomi at. pen boobu dañ la koy dencal fii juróomi at loo defati da ngay ñëw tëdd loolu ñu soog at atte ci lu bees ma joxe exemple juge bi ne naa la deux mois avec sursis fii juróomi at loo fi defati bu yooyu ba pare ñu soog la ci lu bees ci la nga def sursis loolu lay tekki moo tax sursis dafa garaaw contrairement ak ñi ko nit ñi ñi ko ñi ñi ko am na ñoo xam ne préféré nañ leen ñu condamné leen peine ferme ñu tëdd ko génn pare ci ñu toog nga nekk sursis parce que nit ñi mën nañ xam ne yaa ngi sursis s ñu provoqué la donc loolu mooy li nga xam ne moo ci am donc loolu première catégorie bi la deuxième groupe bi mooy ñi nga xamante ne dañ leen setal muy les deux percepteurs muy euh, Mamadou Omar Bokum ak Ibrahima Touré ñoom dañu leen relaxé purement et simplement troisième groupe bi nag mooy ñi nga xamante ne dañuy des en prison muy Khalifa Sall ak ñeneen ñaar ñi euh, Mbaye Touré ak Yaya Bodian bi nga xam ne kenn ku ci nekk condamné nañ leen euh, à cinq ans mu juróomi at yoo xamante ne moom la ñu war tëdd donc ñoom loolu mooy li nga xamante ne moom moo ci dogal dogal bi nag am na leneen loo xamante ne def ci àndal mooy maanaam amande bi nga xamante ne war nañ ko fay mu toll ci 5 millions waaw te boobu dinaa ci dina ci dina ci ñëwaat léegi sax waaye mbir mi yemul foofu juge bi dafa ordonné lu ñu tuddee confiscation des biens des personnes condamnées euh, muy maanaam euh, te du ñëpp sax daanaka Khalifa Sall ci la bokk maanaam euh, cinquième juge bi dafa ordonné ñu confisquer le cinquième de ses biens maanaam boo jëlee mboolem li nga xamante ne moom mooy ay moomeelam bu ñu ko xaajoon juróomi xaaj benn xaaj bi yoon daf ciy teg loxo loolu bokk na ci dogal bi nga xamante ne euh, tribunal bu Ndakaaru euh, génne na ko ci euh, semaine bi ñu génn muy rek dogal bi nga xamante ne joxe nañ ko dans l' affaire Khalifa Sall alors am na leneen tamit loo xamante ne parce que bu weesoo verdict bi ñu joxe dafa am ay exception yoo xam ne avocat yi doon nañ ko sàkku ay exception de nullité yu ñu soulevé woon mais juge bi joxe woon réponse daf ko joindre woon au fond maanaam daf doon xaar bay joxe verdict final bi pour mu mën lu mel ni constitution de parti civil état du Sénégal ak tamit constitution de parti civil mairie de Dakar parce que état du Sénégal nguurub Sénégal dafa gis ne moom dafa lorole ci mbir mi ba tax na kon mën a mënta ñàkk mu ñëw laaj ndàmpaay mais ci dogal bi nga xamante ne juge bi génne na ko dañu débouté état du Sénégal maanaam dañ ko ni amul benn loraange boo xamante ne dal na la ci kaw mbir mi nga xamante ne moom la ñuy toppee Khalifa Sall ba tax na kon mënoo dugg ci dossier bi mënoo réclamer ndàmpaay donc ñu débouté état du Sénégal bu dee mairie de Dakar nga xamante ne dañu demandé woon concession partie civile contrairement ak décision bi juge bi jël pour état du Sénégal état bi dañ ko écarté purement et simplement ko mais mairie de Dakar juge bi nee na mën nañu constitué wu partie civile mais dafa am juste ay conditions yoo xam ne moom la ñu war a dajale bu ñu dajalee conditions yi ñëw ñu mën leen a dox jox acte ci li nga xam moom mooy seen demande de constitution participer bu ñu réclamer ñu jox leen ko bu ñu jox leen ko bu ñu gisee ni amul benn préjudice bu ville de Dakar subir ci affaire bi également juge bi jox leen acte ci ci ci mais en tout cas daal par rapport demande de constitution de partie civile loolu la ci juge bi joxe état du Sénégal dégoûté nañ ko waaye maire de Dakar juge bi nee na mën am nañ autorité euh, war nañu remplir am nañu boo capacité juridique bi pour mën a constituer partie civile mais il suffit juste ñu au préalable ñu am euh, ay euh, conditions yoo xam ne moom la ñu war a dajale pour mën a ñëw constituer mën a constituer partie civile ñu ñu ñu ñu jox leen lépp loo xamante ne seen seen seen seen sàkkuwaay la bi dogal boobu génn nag am na yeneen mbir yoo xamante ne am na ci mm-hmm. ndaxte état du Sénégal def na appel parce que ñun dañoo gis ne ndàmpaay bi ñu doon laaj te ñu débuté leen ci kontaanuñ ci def nañu appel de la même manière également défense également def nañu appel par rapport ak juróomi at yi nga xam ne ñoom la teg prévenir donc loolu li muy tekki rek mooy mbir mi dinañ ko attewaat cour d'appel bu Ndakaaru mu amaat deuxième procès boo xam ne dañuy ñëwaat toutes les parties prenantes au procès dañuy ñëwaat ñu tijjiwaat dossier bi plaidé waat ko euh, xool bu baax a baax ndax euh, juge d'appel yi dañuy confirmer wala dañuy infirmer jugement bi nga xamante ne tribunal correctionnel joxe na ko en première instance mm-hmm. donc loolu li nga xamante ne moom mooy appel bi ci jiitu appel bi beneen point boo xamante ne noté woon naa ko pour wax ci mooy euh, kii ci mbedd bi dañ faral di dégg ñu ne waaw ñi ñu leen di toppee un milliard huit cent millions ba noppi ñu leen di laaj cinq millions waaw donc léegi pour ñu bëri comprendre ñu en fait loolu lan moo ko waral naka nga mën a toppee nit ki ay milliards nga ëlbati ko di ko laaj di ko laaj amande juróomi millions loolu lañ bëggoon leeral il faut ñu def différence entre amende ak dommage et parce que Khalifa Sall au total euh, ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la surtout dossier bi cinq délits lañ leen doon toppee détournement de deniers publics escroquerie portant sur des deniers publics faux et de faux blanchiment de capitaux ak association de malfaiteurs bi ñu demee ba verdict bi ñëw juge bi écarté trois leen bañ seet huit ci trois euh, trois crimes euh, muy détournement de deniers publics muy blanchiment de capitaux muy association de malfaiteurs donc cinq délits la woon au total setal nañ leen ci trois délits ñaari délits lañ leen déclaré coupable muy escroquerie portant sur des deniers publics ak faux et usage de faux muy ñaari délits yooyu noonu léegi nag puisque détournement de deniers publics mooy luubalu xaalisu askan boobu juge bi daf ko écarté ñu relaxé nañ leen partiellement ci délit de détournement Khalifa Sall luubalul xaalisu askan wi donc c'est tout à fait normal ñu bañ ko ni da ngay fay nag état du Sénégal ndàmpaay sàngam mm-hmm. est-ce que comprendre ngeen wax ji puisque dañ ko toppoon ne dafa luubal xaalisu askan bi juge bi ne ko luubaloo xaalisu askan bi donc délit écart détournement bi écarté nañ ko donc léegi amul benn ndàmpaay boo mën a fay état du Sénégal mm-hmm. wuñ ko mu fay un milliard huit cent millions yi donc ce qui veut dire ko déclaré mooy escroquerie portant sur des deniers publics léegi nag loolu dafa may delloo ci li ma waxoon njëlbeen il faut ñu distinguer ñu xaajale différence mooy ndàmpaay bi nga war a fay ki la porté tandis que amende nag mooy maanaam euh, peine bi nga xamante ni mën nga war a dem fay état du Sénégal euh, mën nga dem war a dem dugal ko ci keesu état bi trésor public amende fu ñu la ko kiiwee rek trésor public ngay dem fay ko mais doo ko fay ki la nag puisque nag amul kenn ko porté plainte Khalifa Sall donc dommage intérêt écarté nañ ko donc li ñu ko fayloo amande la boo xamante ni doon na complémentaire la rek mhm. bokk la dara ak dommage intérêt donc différence boobu noonu bu ñu defee la différence entre amende bu baax a lan moo tax juge bi Euh, daal di teg ci kawam amande bu toll ci 5 euh, millions même bu fekkente ne ñu bëri gis nañ ne euh, loolu nekk na loo xamante ne lu li kii la donc loolu noonu benn leeral la rek par rapport ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu googu noonu beneen mbir bi nga xamante ne mu yaakaar naa ne wax naa ko léegi sax muy lu jëm ci wàllum confiscation des biens de toute façon dinañ dem en appel dina amaat beneen procès yàlla rek a xam kañ la nag ndax dañ koy gaawal wala dañ koy yéexal wala dañuy accélérer bi koo xaj mu doon candidature comme ni ko ñeen analyste parce que en réalité am nañu affaire météo boobu noonu. Mhm. et que dañ parce que fi ñu toll nii xam nga bien que condamné nañ ko Khalifa Sall cinq ans. Mhm. mais actuellement amul dara lu ko mën a xañ. mu doon candidat samp ndëndëm. parce que la ah. condamnation n'est pas encore définitive dafa mel ni grâce rek. pour que ñu may la grâce il faut que la. mu ne. fan lay waaw xam nga fi def nañu appel. Mhm. fi ñu il faut ñu demaat attewaat mbir donc léegi nag ci deuxième appel bu fekkante ni renoncé na appel bu def woon appel possibilité de grâce mën na am ak yeneen possibilité sax yu mën a nekk mais fi ñu toll nii puisque def na appel rek day daal euh, xamante ni moom mooy deuxième deuxième procès Pape ci appel bi amul benn euh, temps buñ la xaymal ne ci lay yem pour nga war koo attewaat waaw xam nga fi ñu euh, te question boobu dina permettre sax ma évoqué waale kaaw ñi nga xamante ni dañu wax ni dañu bëgg a accélérer procédure bi mhm. boo demee cour d'appel la fa tegu ci ay dossiers yu ñu war a atte kenn xamul nu mu toll léegi nag est-ce que dañuy bëgg bu fekkente ni foofu la ñuy xamee nag ndax pouvoir bi euh, motivation politique yi ñu koy jiñ am na wala amul fii lañ koy xamee mm-hmm. parce que table cour d'appel dossier ya fa nekk kenn xamul nu toll am na ñoo xam ne bañ defee appel bu ëpp ñoo toog di waa campenal ñu may léegi waa campenal bu Liberté 6 mm-hmm. parce que loolu bokkoon na ci seen ci seen i ci ba jamono yële passé am na yëngu-yëngal bu ñu fa doon def mais lan la wàllum procès yi ak jugement yi du ñun waa prison bi administration pénitentiaire ñoo koy gérer waa tribunal ñoom ñooy programmé donc la tegu ci ay dossier ci table cour d'appel ñu war atte kenn xamul fu nu mu toll léegi nag dañuy xool nag ndax dañuy suivre logique dañuy toppaat dañuy seppi bu Khalifa Sall ñu jugé waat ko parce que dossier euh, Luc Nicolaï war na ñëwaat ñu atte waat ko mm-hmm. Mm-hmm. te ba à ce mu am un troisième procès na moo jiitu foofu war nañ ko war nañ ko war nañ ko kiiwaat donc léegi est-ce que dinañ ko kiiwaat wala déet loolu tamit lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy xoolaat la ak yeneen ak yeneen dossiers yu bëree bëri yoo xamante ne euh, war na ñëw en tout cas même bu fekkente ni euh, délai de recours yi moom loi bi daf ko fixé mais même bu fekkente ne par rapport ak programmation yi loi bi fixé wu ko mais am na loo xamante moom la tuddee la notion de délai raisonnable mm-hmm. lu ñu tuddee délai lañ lay toppee bu mu ne crime mooy rey nit trafic de drogue ak yu mel noonu mais bu dee crime la téye bi lay téye laata ñu ak koy àtte loi bi fixé ko c' la porte ouverte à tous les abus moo tax ngay gis ñii di tëdd ay 8 ans 9 ans 10 ans duñu leen àtteegum mais même bu loi bi fixé wul ne kat warul dépassé am na lu ñu tudd notion de délai raisonnable mhm. parce que nit c' est nit mën a toog fukki at di xaar te kenn àttewal te loolu mi ngi am ba léegi de. mais Pape bi gën a tamit également da ko fi wax souvent ñu nga ñu àtte la tëj la 5 ans nga defaat appel ñu tëyewaat la fa 10 ans wala 8 ans te kenn du la woowaat. waaw loolu loolu moom loolu moom ba mu jeex te kenn àttewaatu la tamit. am na fi am na fi cas bi ma ciy a joxe chaque fois damay incité. marqué waa jooju campagnat bu Koutal la nekk ñu ñaari campagnat moo am Sénégal muy Liberté ak Koutal sur l'ensemble des détenus yi si nekk Sénégal yëpp ci 37 prisons yi xam nga 10 500 ñoo fa nekk officiellement chiffre officiel yi ñu joxe nee nañ 10 moo ci nekk mais plus de 4000 yi def nañu appel àttewaatuñu leen mën naa leen defal quota prison par prison prison bu ci nekk. ñaata détenu lañ fa condamné ñu def appel te jugé waatuñu leen boo demee camp pénal bu Liberté 6 fekk leen fa nga dem camp pénal bu Kotaal fekk leen fa nga dem Dengaman prison bu Thiès fekk leen fa nga dem yeneen ak yeneen prison yu bëree bëri fekk leen fa donc loolu tamit nekk na loo xamante ne euh, beneen beneen mbir la te tey bu bu am na ci ñoo xam ne sax dañu leen di tey tey bu yàgg comme bu ñëwee ci dossier imam doo xam naa dinañ ci évoqué ñi nga xam ni les victimes de longue détention yi ne duñu leen indemniser euh, bu ñu bu fekkente ne jugé nañ leen seetal leen donc maintenant pour en revenir à l' affaire Khalifa Sall loolu mooy li nga xamante euh, moom moo ci moom moo ci am donc ñuy xaarandi li nga xamante ni moom mooy procès en appel bi na léegi nag mooy ñëw nag pour tontu ñi nga xamante ne bon affaire du tontu sax mais indi leeral pour ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne euh, puisque tëj nañ ko cinq ans est-ce que loolu da koy xañ mu doon candidat wala déet. Mm-hmm, première raison premier argument bi ñuy génne buy buy wane ni loolu mënagul nekk mooy la condamnation n'est pas encore définitive def na appel mbir mi dafa war a ko buñ ci kontaanul ñu defaat pour joxe dogal soit demander à ce ko comme ni mu ko defee dans l'affaire Luc Nicolaï ak yeneen dossier wala déet. donc loolu la la condamnation n'est pas encore le jugement n'est pas encore donc foofu amul dara loo xamante ni perte na ko parce que appel bi mu def day annulé première décision fi ñu toll nii 5 ans yooyu moom tekkeetul dara annulé wu na. Hmm. Khalifa Sall fi ñu toll nii présomption d'innocence bi ñëwaat na. jour bi ñu ko condamné bi ñu ko déclaré coupable ba mu formé appel ca lendemain ca bés ba sa toog annulé na première décision bi. Hmm. ba fi ñu toll nii bu deuxième bee tax ñuy wax. Hmm. boobu mooy premier argument bi. deuxième argument bi mooy ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci article L31 code électoral pour wax ne parce que en réalité code électoral article L31 bi day wax ne bu fekkente ne dañ la condamné cinq ans jëm kaw ci délai yu bëri yu ñu tudd yoo xamante ni détournement yu mel noonu ñoom seen bokk na ci mënoo samp sa ndënd hmm. comprendre nga léegi Khalifa Sall ci L31 boobu noonu yi mu tudd détournement de deniers publics ci la bokk mais Khalifa Sall de condamné wuñ ko pour détournement de dañ ko ci relaxé muy benn ñaareel bi mooy même bu fekkente ni dañ ko condamné pour délit boo xamante ne bokk na ci mais ngir yàlla article L31 waxul pour ku bëgg sant ndëndëm dafa wax pour ku bëgg inscrire ci liste électorale xam nga xam nga xam nga prinçay lan moo ma métti ci dëkk bi dafay am juriste yoo xamante ne <laughs> trompe nit ñi ak nax nekkee lu taaye ay texte selon vouloir ñi leen ko sant rek lañ fi nekkee di jéem nax askan wi di jéem a tromper askan wi article mu te lii nii c'est valable pour kaaw Khalifa Sall ak aussi pour euh, kaaw Karim Wade article L31 code électoral dafa ne pour nga inscrire ci liste électorale yi. buñ la condamné 5 ans mënoo inscrire ci liste électorale te élection président de la république soxla ngay inscrire ci liste électorale maire. ak élection député. mooy aajowoo nga inscrire ci liste électorale mais bu dee élection président de la république aajowoo ngay inscrire ci liste électorale loolu kon moom xanaa ñëpp xam nañ ko. donc L31 wax dëgg li mu wax leer na waxul par rapport pour nekk candidat pour samp ndënd pour inscrire sur liste électorale la wax président c'est élection présidentielle ce n'est pas une obligation de inscrire sur les listes électorales loolu la article L31 code électoral wax maintenant puisque wax na nii nag puisque nguur gi xamee nañ ko nii moo tax ñu bëgg indi beneen galgal à travers loi bi ñu bëgg indi ci parrainage bi te kooku moom beneen waxtaan spécial la parce que lu jar a faram-fàcce la nit ñi comprendre bu baax parrainage bi mooy lan ak lan la und ak lan mooy conséquence ak ban impact la mën a am bés bu fi jàllee mmh. donc loolu yaakaar naa ne loolu tamit vraiment lu lu lu jar a kii la pour indi galgal nag moo tax ñu bëgg changer mbir mi mais fi ñu toll ni en l'état actuel de la procédure comme ni ko avocat yi di waxee article L31 ñi muy waxal du ko bëgg ñu bëgg inscrire sur les listes électorales te élection député ak maire moom mooy laaj nga inscrire par force ci liste électorale bu dee présidentielle soxla soxlawul donc voilà ce qu'il en est par rapport ak euh, l'affaire Khalifa Sall bu dee amul ay préoccupations observation particulière ak yu mel noonu mhm. ñu jàll mhm. euh, imam Ndao dossier imam Ndao ak ñi nga xamante ñoom la àndal ci dossier bi au total ñu toll ci 30 parce que 32 la ñu woon ñaari ñi moom seen mbir féetu na boor mu des ci 30 yi nga xam ne ñoom la war a yeggali tey imam Ndao bokk ci ñaar ñi nga xamante ni seen mbir feete na booy bokk na ci Assane moom dañ ko acquitté maanaam setal nañ ko ba mu set wicc fi ñu toll tëddoon na juróom euh, ñaari at nag laata ñu koy libéré te ndàmpaay bi kenn du ko jox. parce que commission waaw dañ ko acquitté. dañ ko acquitté acquittement la maanaam seetal nañ ko ba mu set wécc ci mboolem tuuma yi nga xam ne tegal nañ ko ci kawam moom Assane Camara. étudiant su fekkee Fabel yàqu. étudiant loo waaw yàqu. Mhm. mais ñi ci jàpp te mu doon moom parce que am na ci étudiant yu bëri yoo xamante ak ay élèves yu bëri ñu jàpp ci affaire terrorisme yi ak tamit ñoo xamante ne ci kaaw même affaire bac bi fraude au bac bi élèves yu bëri leen ci jàpp yàq seen jàng bëri na ci ay innocent loolu xam naa bu ñu wax wax ko jotee dinañ ci wax donc loolu loolu mooy li nga xam moom moo am Assane Camara boobu indemnisation moom loolu moom nekkul nit lu mën nit yaakaar parce que commission juridictionnelle bi nekk Cour suprême mm. na indemniser les victimes de donc loolu la bu dee Ibrahima li mën nañu condamné 15 ans de travaux mais mën na def appel pour que ñu attewaat ko te bu demee cour d'appel yaakaar mën na am ne mën nañu infirmer décision bi wala boobu ñu xool euh, naka lañ koy wàññee wala ñu teggil ko ko wala sax ñu akitawaat ko lu ne mën na faa nekk mhm. mu des nag ñi nga xam ne ñoom la war a yeggal tey muy imam daw ak ñi nga xam ne ñoom la àndal trente personnes yi tey ñi démb ci altine démb dafa am ay jalgati yoo xamante ne moom la avocat yi seetlu maanaam ay irrégularité mhm. yoo xamante ne moom moo leen poussé ñu demandé lu ñu tuddee ay soulever ay exception de nullité parce que dañoo gis ne dafa am ci dossier bi ay jalgati te jalgati yooyu noonu loi bi li mu wax mooy fu mu am dañoo war a annuler PV procédure te bu ñu annuler procédure bi la conséquence directe et immédiate mooy la remise en liberté de toutes les personnes arrêtées et malgré ça on waaw léegi nag première bi mooy ci ñi ñu daf ci am koo xam ne mineur la muy Mamadou Seck donc au moment des faits 2015 léegi yaakaar naa ay 17 rek la amoon. boobu mineur la bokk ci jamono yañ koy jàpp. Mm. alors que tribunal bi avocat am ñu gis nañ ni kat chambre criminelle mënu koo mënu koo àtte donc loolu benn la ci. deuxième cas bi bi mooy ñi nga xamante ne euh, maanaam euh, notifié wuñu leen charge yi c' est un peu technique nag mais pour ma expliquer ko en terme facile en français facile pour que ñu may déglu mën comprendre mooy euh, procès dafa war a notifier charges yi li li ñu leen di toppee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dañ la ko war a leeral benn par benn ba pare mention boobu figuré ci PV bi ñoo ñu gis na loolu amul euh, beneen mbir bi tamit mooy am na ci ñoo xamante ne euh, également euh, ci li nga xamante ne moom mooy parce que li ñuy toppee ñoom imam Alioune Badara Ndao ak ñeneen ñi mu àndal muy apologie du terrorisme financement du terrorisme ak yëpp dafa am loi bu bees bu Sénégal indi pour que ñu mën leen ci topp loi bi assemblée nationale votée en 2016 xam nga 2016 la ko assemblée nationale votée imam Ndao kañ ko jàpp octobre 2015 donc bañ koy jàpp loi bi amagul woon donc démb ci procès bi nag ay avocat ñu ne au nom du principe de la non rétroactivité de la loi mënuñ leen topp sur la base d'une loi boo xam ne jamono yi ñu leen doon topp loi boobu existé wul woon ma yéen a ngi déglu sax maître Moussa Sarr bi nga xam ne moom mooy coordonnateur collectif défense bi mi ngi doon évoqué benn principe bu ñu tuddee Euh, li nga xam principe bi nga xamante ne day wax ni nit mën nañu la topp ci loo xamante ni amul loi boo xamante moom mooy ko prévoir mhm. muy principe de la légalité des peines et des infractions donc loolu mooy li nga moom mooy mboolem jalgate yi nga xamante ni ñoom gis euh, li nga xam ne moom mooy sàkku avocat de la défense dañ ko defee nag procureur de la république jël na kàddu pour apporter ne chambre criminelle parce que mooy ëttu attekaay bi juge ñoom imam ndaw mën na atte mineur mais tey ci ci mardi bi ci le juge bi def di leen départager est-ce que jalgati yooyu dañ ci war a tirer les conséquences wala naka la naan demee loolu juge bi yaakaar naa dina ci àddu donc loolu moo nekkoon stade préliminaire fi ñu toll nii euh, ñoom imam ndaw seen acte dëggantaan tàmbaleegul le jugement proprement dit commencé gul ba léegi ñu ngi ci stade préliminaire ah loolu waru la jaaxal parce que mbirum Khalifa Sall toog nañu une semaine yoo xam ne ñu ngi woon ci stade préliminaire mm-hmm. dans l'affaire Karim Wade toog nañu un mois yoo xam ne ñu ngi woon ci stade parce que gars yi bu gisee ay exception rek kenn mu leen ko xañ de moom parce que seen système de défense la boobu kon daal tey ci mardi ji défense war na répliquer bu rëkk gi jeexee nag ci la ñu ndax dañ leen di jox gain de cause par rapport ak seen demande ah. d' annulation PV ak yooyu wala déet mais daal tey ci mardi bi euh, dinañ yeggal li nga xamante moom moo ci am ci mboolem 30 euh, personnes yi nga xamante euh, dañ leen war a jugé mën nañ jàpp ni moom mooy li nga xamante ni xewoon na fële ca tribunal bu Ndakaaru démb ci altine ji par rapport procès imam Ndao bi nga xam ne au total am na 64 avocats euh, pour 30 accusés zéro témoin zéro partie amul benn témoin kuy ñëw ku war a ñëw seede pour le moment pour le moment parce que mën nañ dem ba ci biir débat yi laaj ko parce que avocat défense am na ñaar ñu bëggoon ñu ñëw muy le commandant de la section de recherche commandant Diack bu koy de la division des investigations euh, criminelles

te loo xamante ni procureur moom moo ko sàkku um, nekkagul donc ñu ci bari ñu ngi débat ci loo xamante ni peut-être comprendre guñu exactement naka la demee. waaw parce que ginnaaw bi ñu ko attee semaine bi ñu weesu le 17 le verdict bi di génn. parce que deux ans yi tëjaguñ ko de Barthélémy Dias tëjaguñ ko. procureur de la république moom moo sàkku ñu tëj ko ñaari atu kaso il faut aussi nit ñi comprendre ne procureur du tëj. moom day sàkku. li muy def réquisition la day requérir xam ne moom la kii mu doon moom dafa mais nag juge bi mooy dogal juge bi mooy décider bu ko neexee mu bañ ko kii parce que gis ngeen Assane Camara bi ñu acquitté dem procureur dafa demandé woon ñu tëj ko ay actes travaux forcés juge bi ñëw acquitté ko donc le juge n'est pas tenu par les réquisitions du parquet mën na ko topp comme mun na ko bañ a topp comme mën na dem au delà mën na dëkko dem en deçà mën na lu xool la daal li nga xam ñi nga xam ñoom ñooy collaborateur ñi nga xam ne ñooñu lay nekkal donc voilà ce ne tey boobu moom <laughs> Euh, dinañ ci am lu gën a leer. leer na ñaata moo des ci temps bi. Euh, est-ce que jeexaloo ko tàkk. Ah. ah kon dafa mel ni ma doole kii nag xus na ci sama temps. <laughs> maanaam <laughs> Oumou moo jël sa temps baax am na solo mu bàyyi rek nga tàggu. waaw kon li des moom dañ koy daal di tënk rek. beneen jotaay beneen jotaay ñu mën a ñëw nag ci actualité dans les prisons parce que prison yi yëngu nañ de. yëngu nañ de prison bu Thiès yëngu na lool sax ak yeneen ak yeneen ak yi ah. ah il faut que sa beneen yoon. am na mosal tuuti sax. mooy grève de la faim bi fa cantaako ñu doon def. papa woon ko mais je pense que su fekkente aussi temps bi may ko mën ngaa ñëw parce que Charles kii woo. ñuy grève ñoom. <laughs> waaw xam nga avril bi am juróom benn atte atteeguñu leen. Mm, donc ñoom looloo waraloon seen xiif rek. mais li ma jaaxal mooy seen sëriñ génn na. waaw dañ ko may liberté provisoire léegi nag ñeneen seize yi des. Mhm. ñoom tam nee nañ. dañ leen fàtte dañoo bëgg ñu atte leen ñoom it. seen sëriñ du génn ñoom ñu toog ci biir ah, ñun daal dañ leen dañ leen ñëwaat parce que def nañu six ans te kenn atteegu leen ah. peut-être ah. dinañ ci ñëwaat yeneen jotaay euh, kon ma fay jaaree kàddu rek di nuyu ñi nga xamante ñoom la ñu ci liggéey bi di nuyu ñi caabi fete ginnaaw rawatina jigéen ñi nekk fële ci prison yi jigéen ñi nekk Sénégal yëpp maa fàttewul kenn